mbokk yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi déglu site internet bi di bawal info net ñoo ngi fii ci dëkk bu sell bi di Touba euh, ñu fa yéene seq waxtaanu ndaw ak Serigne Modou Habib Mbacké euh, li ñuy waxtaane nag muy génnuk àdduna El Hadji Nassirou Touré muy koo xamante ni euh, àdduna xam na ko lislaam xam na ko yoonu murit xam na ko ndax mu nekkoon taalibe boo xamante ni taalibe Sëriñ Tuubaa bu wér la waaye tamit mu nekkoon koo xamante ni ku jabo ku jaxasoo woon ak njabootuk Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul gi waaye ci biir jaxasoo gi da leen a déggaloon di fësal ak taalibeem bu baax a baax a baax waaye tamit mu liggéeyal réewam Sénégal ndax nekk na fi sous-préfet waaye lépp rafet moo tax bi mu génnee àdduna ñu koy jaal bu baax a baax waa Sénégal di ko jaal lislaam ndax taxawaayam ñëpp xamoon nañ ko waaye di ko jaal suñu xarit ki nga xamante ni mooy euh, Abdou Lahad ture moom tim di nitu nit ñi kon Serigne Modou abi Mbacké euh, fii ci Touba euh, ñoo ngi lay nuyu di la ziar. waaw maa ngi lay nuyu di la siyaare bu baax a baax di nuyu téléspectateur yëpp di nuyu mboolem jullit tey wax ni tey dañu am naqar ndax ñàkk suñu waajur boo xam ne day kenn ci réew mi. di kenn ci njabootu tu baa gi muy El Hadj Nassirou Touré gi nga xam ne jëfal na Sénégal loo xam ne waxuma la jëfinu waaye royukaay la ci képp koo xam ne dénk nañ la direction wala ñu dénk dara ci réew mi. ndax kii di El Hadj Nassirou. Mhm. yaakaar naa nekk na préfet li mayee ci kër ëpp na téeméeri kër ak nangam te amul jenn doomam joo xam ne yëkkati na kër Ndakaaru may la ko. Mhm. loolu jàpp naa ne référence la ci lenn luñ ko xamal te jàpp naa ne bi mu amee kër yàggul. yaakaar naa ku maye lu toll ci téeméeri kër daggal ko askan wi yaakaar naa tey ñii ñuy tudd ci réew mi war nañoo def roy waay woowu ci moom ndax yaakaar naa ku ko mat la ndax buñ xoolee jamono yi léegi ji képp kuñ fi fal bala ngaa xalaat dara mooy da nga xalaat sa bopp xalaat sa njaboot loolu nag dalutoon alaaji Nasiru Touré maanaam dañ ko dénkoon alalu askan wi waaye muy bàyyi xel askan wi muy bàyyi xel askan wi dañ ko dénkal tey mënoon a jën doomam ji mën naa ko romb Ndakaaru moom moom kër gi dëgg la amul benn yoon. dëgg la ndax lépp lu luñ ko jox rek jàpp na ne askan wi la ko war a séddale. Euh, sàn sànq ñoo ngi waxtaan nga ne ko jaxasoo njabootu Sëriñ Tuubaa gi la. waaw Serigne Abdoulaye dane ko woon yaa ma doy ci lu bare bare. ñu gis ci digganteem ak Serigne Mountakha mii nga xam ne bu yàggutoo. Mhm. Serigne Mountakha déplacé wu na dem seeti ko këram. te yaakaar naa loolu bëriwul ñu ko Serigne bi defal. dëgg la kon nag am na fu ko tegoon. macha allah nga xam ne mboolem li Serigne Abdoulaye daan doxlu. Mhm. wala Serigne Mountakha di ko doxlu. Mhm. alaaji na siro ko ca doy. lii ñuy def ndakaaru di ko def jàmmalaay gi alaaji Nasiru moo ko njëkk génn xalaat boobu ba tey fu mu àgg moo ko fa àggale macha allah waaw macha allah kon jërëjëf euh, sëriñ Modou Abi Mbacke euh, ñoo itam ñu lay sant bu baax a baax euh, di la gërëm mu nekkoon ay kàddu seede rek yoo xam ne yëkkati nañ ko si sunu waajur yi nga xamante ni mooy El Hadji Nasiru Touré sëriñ Modou Abib waaw kon daal li ñu koy wax mooy di ko ñaanal ndax gëm nañ tey dana gisee ak Cheikh Ahmadul Khadim macha allah ndax liggéeyal na Sëriñ Tuubaa ba am ngërëmam mhm. liggéey njabootu sëriñ ba am ngërëmam kon nag ñu ngi koy ñaan di ñaanal njaboot gi mu fi bàyyi nga xam ne suñu xaritu bopp muy Abdoul Ahad Touré. Mhm. te ñëpp xam ko moom muy nit koo xam ne nit ku dal la. nit ku nangoo muñ la. macha allah ñuy ñaanal tànk ya waajuram ba tax woon. mu taxaw fa te mate ko. macha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu.